di di leen di len fay et puis di nuyu internet yi euh di leen jaajëfal hein ci liggéey bu rafet bi ngeen di def et je crois que aujourd'hui mën nañu wax ni euh internet bi c'est tellement inondé que kenn amatul jamm ndax information yu doy. Euh, tey euh, ñu gis ne ki nga xamante ne moo di Ousmane Tanor Dieng génn na àdduna ban sentiment lañu la fekkee ne. mais euh, sentiment de douleur douleur profonde parce que. Euh, nit ki bang euh, ba koy xam yàgg na ngeen nekk euh, xëy na dimension d'homme d'état bi mu nekk tax na doo ko mën a xam nga li may faral di wax ma ne kilifa kenn du ko ñooru kilifa même boo leen ay xarit waroo ko ñooxu mais moom bu la soxlaa mën la gis yow boo ko soxlaa di nga ko gis mais il est préféré il est toujours préférable ñun ñu koy bàyyi xelam ak ndax niñ ko jegee woon.

dafay bëgg di dimbali dans la discrétion té lolu yàgg na euh ay euh ay soxnam ñooñu euh tay xamna ni naqar bu rëy am nañ ko mais ñun ñi nga xamni c'est la famille du karaté aussi euh, ça a été une grosse surprise man bima duggé RTS tay ci hall bi di defi sama émission bima gissé ci écran bi euh, photo maanaam eh sama grand ngoog mais xaw lu xew dañ bay ba mu dugg ci biir ba génn ñu ne ma Ousmane moo génn àddina alors là euh, gis nga àddina bu nit dee génn àddina toujours dafa lay bett mais dans la vie il est toujours bon de prévoir ces choses là euh, mu nekkoon un karatéka discret tamit mosul wone ni ministre d'état la bu ma saan nekk si tapis du la won loolu maître Fernand Nunez yore ko yu ko kaay mu def fa des années nit ñi mun ñoo xam ni kii mooy ministre d'état Ousmane Tanordien. Euh, dem y mujj gi yeneen xaritu yi collègues yi topp ko euh, ku mel ni Moustapha euh, Diagne bu ne ko ministre des finances te ci loolu la encouragé yeneen ministres yu la bëri di dem yu à l'heure actuelle il y a Alun Sarr qui est ministre du tourisme il y a Mansour Fay, il y a Mamadou Diop Croix ak Ahmed Fall Baraya ñoom ñëpp dañuy def deuxième troisième le lañu euh, pour dire simplement que euh, arts martiaux am lu lu euh, mi ngi à enseigne que rapprochement bi ñu ak Ousmane Tenordien ak moom di moom ci fu ne te nit non corniche footing mais en fait sax daawul def footing bu du footing ndax audience dafa mel ni bureau ku nekk ngi wax sa soxla man su ko fekkee koy si xëcc ko ma ko du bureau bon yu mel noonu euh, demoon na ba mu mu fu ma bu sax ne ma eh parce que c'était sincère suis may dara mosuma defal dara mais relation bu sincère la ba bi mu génnee gouvernement wax na ma benn wax un jour euh, euh, dama toog méditer parce que dama def événement un premier événement bi ma jugee def RTS def ko ci biir studio yi euh, dama ko wo mané ko yo la bëgg nga présider ko mu ne ma amul problème parce que bobu temps fekk na mu nek nak ci ndëndal yi mané ko bo fay ñëw sarax ma ngir yalla bu fi indi garde corps bu fi indi nit ñëwal yow kenn dawalal sa auto nga ñëw mu ne ma d'accord et c'est ce qu'il a fait ñëw na bu ci buntu bi gendarme bi téye ko parce que xamuko xam nga c'est des personnalités boo leen gisee si télé yi doo leen xàmmee di leen xàmmee ni si télé bi mais bu ñu nekkee si mbedd mi dootoo leen xàmmee alors yooyu bu mu ñëwee mu nekk loo xam dañ ne même RTS bi mu leen ne damay invité euh, Tanor moo koy présider gëmuñu ma parce que neexul woon a jot alors euh, simplicité bi mu nekkoon nag mooy loolu à un moment donné am na étudiants yoo xam ne euh, buñ ma gisee dañ naan ma yow rek li ñu gis ngay wax ak Ousmane Tanor ñooy di ko cote parce que dañuy gis ni may def ak mom alors euh, mu mu nekk nit ko xamni dafa simple simple malheureusement je dis encore une fois et une fois je lui ai dit j'ai dit les gens ne vous connaissent pas buñ la xamone xeyna dina mel neneen parce que aussi bo nek ci pouvoir nit ñi ñolay yaq ñi lay wër ñolay indil ay ennemis parce que dañ lay xagn sa liberté mais mom da dan échappé di daw di dem ci corniche bi buñ ko invité mu ñew bu nekk ci ki bi xoola tey volleyball volleyball bu demee ba toll fi mu toll ni mën naa ne Ousmane Tanor la parce que Baba si de son vivant mom rek la dan dimbali ñuy dem ay championnat di régler di régler ba équipe bi commencé gagner à l'heure actuelle volleyball dem na ba légui on est respecté à travers l'Afrique et le monde alors xam nga tay buñ togon fi di wax ci Ousmane Tanor Dieng dinañ si mën naa la si wax ay à l'appel am na benn audience bo xamné euh, euh dañ né recevoir tous les sportifs ñu ñëw euh, palais Abdou Diouf taxaw y avait le judo le karaté le basket le handball la lutte ñëpp au banquet Muy fess fait dell ma daal di taxaw ba si réfléchir. may réfléchir euh, du que ñun karaté on avait tellement de médailles dañu mën a gagner am médaille ma daal di ma dem si Bruno moom tamit ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ma ne ma ne ko mais mais excellence mu ne ma ne ko est ce que mën nga ma mën nga ma bàyyi ma présenter euh, euh, sportif yi au président la parce que man xam naa sportif yi mu ne ma ah bon euh, tu tu pourras faire ça ma ne ko pourquoi mu ne ma attention hein ma ne ko non jox ma ko ñu dugg rek mu ne ma vas-y ma daal di jege président nuyu ko ne ko bon je vais vous présenter mu bëgg dem ma téye ko si loxo nga xam ne waa kii li muy def nii Abdou Diouf si mi ngi naan ma mi waa xaaral ma ñëw xam nga yooyu Ousmane nga taxaw si ginnaawam on se connaît très bien ma présenté président ñëpp bi mu defee discours ba pare. c'était tellement convivial que Abdou Diouf il a voulu faire un bain de foule nekk ak biir nit ñi ba si yàgg ma dégg Ousmane ñëw ba sama wet bon loolu dama koy wax parce que euh, dama amoon parfum bu neex mu taxaw sama wet na ma mais mais boy sa parfum bi neex na de ban parfum la ma ne ko ah non du ma la ko wax ça ne se dit pas

bu fekkente ne bànneex bu bëri duñ koy mesurer yàlla dinañu ko mesurer parce que dafa tombé senegal Sénégal wara war a dem final dëkk bi mel ni lu tàkk heure tim tisbaar kenn julliwu ko timis kenn julliwu ko gée kenn julliwu ko dañ ñëpp dañ ko leb yàlla yow suba daal def lii température yëpp wàcc nga xam ne yàlla mooy ndam rek kon de desul lulul di ko ñaanal parce que bett nek na mbettel euh diko ñaanal yalla yeureum ko te yéexee ñu yóbbu ko aljana euh mom ña ak ñafa nek ak ña ko fek euh di jaale président de la république parce que xamna ni son excellence monsieur Macky Sall amna lu ko metti parce que il a été un vrai partenaire Moustapha Niass c'est la même chose ñom ñep amna ñu lu len metti té Ousmane Tanor Dien boko xamé xamee si ngay xam limay wax ñiko ko xamul nag mënuñu ko xam parce que parfois dafa yoré masque da ngay defee ne masque bi lool la alors à l'intérieur ci bir du lool xol bu rafet la yoré ku bax la soko ko muy wax sa nga xamni ki ku bax la ba pare un comité de l'État bu ñu naan boom bureau organisation et méthode mën naa mom motax ñukay wax. di ko di masawu famille am di masawu ku melni ni El Hadj Sarr El Hadj dañuy karaté ak mom légui mom la doon waxal téléphone El Hadj da daan and ak Ousmane tanodien fune mom tamit léegi bi may wax mi naan ñun kay ñu vraiment mbiru yàlla la kon yàlla na ko yàlla yërëm euh, yàlla defal ko aljana fi daws ak ña fa nekk ñëpp suñu way jur yeeg ñëpp yàlla def jàmm ci réew mi il faut que les gens comprennent que yàlla mooy jël décision am na yoo xam ne kenn mun si dara nga nekk président de la république nga nekk planton nga nekk chauffeur nga nekk loo mënti doon xamal ne yàlla mi ngi fi moom yàkkamtiwul te day seetaan nañu jaamu yàlla di def lu baax di wax lu baax di bëggante bu ko defee yàlla def jam yàlla na yàlla defal jàmm. waaw mais xam nga xam nga euh, euh, Ousmane euh, anecdote yi dañoo bëri man am na benn boo xam ne am na benn boo xam ne boobu dama noon xëy na sax xam nga <laughs> àddina àddina dafa nekk yoo xam ne dama ñëw fek mu toog mu taxaw. di waxtaan nii nit ñi di wax man leen yéen li ngeen di wax nii lan la ki bàyyi leen jàmbur mu dem

amna na ñoo doon àndal di football ak nekk si talibek beeg di naan bàyyi nga leen am nga yeneen xarit yu bees buñ la dàqee ministre nga waat say mbokk say xarit loolu lañu war a bàyyi te xaritoo dafa nekk loo xam ne il faut nit ñi accepter ko que tu sois à l'opposition que tu sois au pouvoir parce que parfois da ngay gis ku nekk au pouvoir jóge pouvoir nekk opposant dama ne sax opposant à nii ni wax opposition mais dama ne ñëpp c'est des sénégalais qui cherchent à travailler pour la nation donc opposant opposant par rapport à quoi parce que demee boo nekkee chef d'état di nga am ay opposant donc sa xel su delloo di nga xam ne yow war na am na lu a yoo xam ne war nga ko sóoraale ba tax na war bob y suñu là c'est tout ndax kii ministre c'est tout ndax kële chauffeur le seetul ndax c'est baykat le seetul ndax tout le dara fay jot mission bi day jox rek mu arrêté ko donc il faut que ñu rafetal Ousmane il a joué sa partition il a fait sa mission et il est parti sans crier gare c'est un homme d'une dimension exceptionnelle